woon Amérique yëngal Amérique yi xew Amérique yëpp oh. Amérique neex ñaa nga ñëw ne danga ngaa a génn nga ñëw ne da ngaa a wax ñaa xarañ lool ñu ngi lay nuyu maa laa ilaaha illallah yéen ñi atuma mën ngeen a woote ah ci 88 628 euh, ak numéro yi feeñ. ci suufu écran bi ak ñi nekk France ak ñëpp mën nañoo dugg ah. wallaay wallaay wallaay Amérique bokk naa fa de bokk naa Amérique maa kii wayam ci Amérique passeport yu bari maa kii wayam Amérique fa dara. mais mais man dafa am loo xam ni saa yu ma xëyee dama koy statut. Hmm. Hmm. pour nuyu àdduna te ci ñaa laa mooy yeesaay yeesaay ñaa est aka from from Arène Musique bon appétit mes amis loo mes amis de Sénat bon appétit taxu teg ku du fi xaj de ñaan li xewoon Amérique ay waay ma ñu dem appétit de Tima mama ma gi Seydou yaay Seydou Amina Fall xale dembal baax happen in Vegas is stay in Dakar. mën naa leen ko Dakar you bring it from Vegas to Dakar. yeah bring sama doom day ñu naan ko moo géej. sa doom day la. sama xarit la. ma ko doon liggéeyal couverture médiatique. xam nga moo géej fi mu toll nii en moins de 3 mois àdduna yëpp xam nañ ko te télévision dama fa du TFM du RTS du DDS du kenn ko fa dem réseaux sociaux fa dem maa ngi Sankara Mbaye. àdduna Sénégal te ñett nit ñoo gis ñu toog ñaar ñi ci moo géej la ñuy waxtaanee lépp ci digital la rek. liggéey moom fa yóbboon mu fay ma caché dix mille dollars heure ma demee dix mille dollars la may fay muy six millions francs CFA ma dem liggéey ko couvrir ko affaire bi jaar yoon ñëw coow li bari woon loolu nag mais sant yàlla rek. coow li lan la woon ba mu bari. ah coow li bari woon rek ay war xam ne li xew Vegas yëpp man ñaar li xew Vegas yëpp iñaane naa ko. Hmm. Euh, ñuy toog fii ci plateau bi dama bëgg indi ma ko dëggantaan mais Vegas lu fa xew. indi ma ko dëggantaan lu ñu waxtaan mën a jóg mën naa bëgg mën a jóg. waaw lu xewoon Vegas. mais léegi ma laaj la question boo xam ne. day tëj ñaar day tàggatoo de. ñi ko bëgg a laaj ñi ko bëgg a laaj bëri sama anniversaire la may anniversaire la fii nii Abba. dama ñëw pour <laughs> pour pour pour Abba dama ñëw pour pour pour pour pour promouvoir sama anniversaire war a am gàmm bi le 18 février ak le 19. asaar rek asaar ci asaar asaar avant ñi dagg xam naa ci asaar mu dem ci ay projet mu ci wax laaw de man ci wax ci temps bi tey xam naa ni kenn dagg. mayel asaar mu wax ay projet mayel asaar